doomi jàmbur bàyyi bàyyi bàyyi noppal bu nga téye noppal du bu dégg bàyyi noppam yi bàyyi ko doo ko bàyyi ah dama laa laaj doo bye bàyyi ah doo bàyyi doomi jàmbur bi lu xew lu mu la def bàyyi doomi jàmbur bi mu dem yoonam yaa ngi ko toroxal ah doo ko bàyyi bàyyi doomi jàmbur bi <laughs> Yokka iya, ngawan nyaudi. Makanan. Tahor, tahor. Kabaf pulang, bingung nyukuh. doxal defal ndànk nag doxal dalli dalli am sama roba nag doxal bàyyi doxal ko doxal doxal rek am na lu may xool doxal jógal taxaw dawal ma ah? man dama ñëwoon pour faju si waaw ah. ah wax dëgg yàlla li fi nekk moom daanaka mënoo ko nit ba mu gëm man mi biñ ma koy wax mënu ma koon gëm mais daanaka bi ma ba fii la ma yëg man dong maa xam waaw. amoon na ay jafe-jafe yu bëree bëree bëree bëri ci sama mbirum wérgu yaram maanaam feebaru sufóore ma doon bëgg a rey hmm. soccet daal man waaw mais maanaam ci ñett banaana yu cent franc la ko fajee dama fi ñëw maa ngi doon bëgg a dee mënu ma woon toog mënu woon def dara hémorroïde bu méttee méttee métti hmm. bi ma ñëwee mu ne ma dama jënd ñetti banaana nga ñëw moom laa génn jënd ko ñëwaat ba mu ko joxee mu ñaan di ne lekkal bu ko bokk kenn ba ma ko lekkee moom macha allah waaw fu ma neex toog macha allah man kay weesu naa kontaan. da def yaa booy. suñu sant yàlla bu baax. loo doon wut fii moo doon métti. waaw sa mbir itam leerul. noppi itam leerul. sa bët yi da doon. li dafa leerul dum daan leeral la leerawul. nopp yi lu ci newoon. dafa xaw a xaw a naqay tamit tamit leer leer tamit dum daan leere. léegi nag. maa ngi sant yàlla bu baax. mi ngi leer nopp yi. waaw. Hmm. mi ngi leer bët yaa ngi leer. mi ngi yaa ngi leer. tànk yi tamit macha allah. tànk yi macha allah. waaw. Hmm. alhamdulilah rabbil boo yow loolu la fi indi. xanaa samay tànk di métti sama digg di métti mënumaa gis bu baax waaye ba ma ñëwee ba tey macha allah hmm. may ñaan Ibrahima mu gudd fan am wér gi yaram kuma laal nga wër kuma mu xool nga wër man Ibrahima dama koy sant rek andi sama njaboot gi fii ñuy daanu ba ñëwee ba léegi dañoo wër metti waaw gisuma woon bu baax waaye bi ma ñëwee bi ma ñaanalee damaa gis maa ngi lay xool bu baax di ñaanal Ibrahima daal li muy def yàlla na ko yàlla bokkuma la juróomi baaraam fukk ba ma ko nee ma gis ko waaw sant yàlla bu baax sant bu wér. waaw tey dafa mel ni da nga doon ñëw di faju si de. Mm, dama ñëwoon rendez-vous. waaw noo gisee mbir mi. Mm, sant yàlla rek mm, man moom dama ma feebaree léegi yàgg na te moom moom wax dëgg neex yàlla moom am naa ci moom yaakaar borom baax la am na yërmande euh, dimanche passé moom si laa gënoon a mm-hmm. maa ngi koy sant bu baax jàmbaar la moom wax dëgg neex yàlla. Papa! Papa! departament grand tegal la sama tànka tegal tànka wi tegal tànka wi yaa ngi may gaañ papa sëñ waxoon na rek ma eh ma noppi yow waaye teg naa léegi jógal taxaw jógal taxaw léegi léegi déedéet du doo jël lii de jógal taxaw rek tegal tànk jooma loxo jooma loxo bi ah métti na méttiwul métti bi yëpp génne naa ko léegi doxal bi dëgër si suuf bu ñëw rek taxaw ma foofu doxal dafa ragal. daa ragal demal naka naka rek. man di xam naa ne balaa ngay dox ne man de su ma loos bi ma jubbu dam yi nga xamante ne yéen a ngi seetaan Widish tey ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy ci kër Abdou Diop tey nag fu mu toll nii xam naa ne lu bari dina leer parce que fu mu toll nii instant bi xam naa ne réew meek àdduna bi yëpp ñu ngi koy seetaan te mi ngi def liggéey bu am solo ma bàyyi ko mu daal di nuyoo ñu dugg ak moom ci waxtaan wi bisimilah. Assalamualaikum, warahmatullahi taala wabarakatuh barakatu ya, mangi nuyu wa Gambi wa senegal mangi nuyu wa aduna bi yëpp ak wa mbour wa nuyu na len bu baakha baakha baax a ñu doon wax kan moy Abdou Diop lan nga ñuy wax Abdou Diop mangi ngi Gambi wa man man nak duma Sénégalais e, you know Gambien la euh ah, mangi juddoo dëkk bu tudda euh, Albreda si biir Gambie wante maa ngi toog si Terekunda si dëkk bu tudda Talinding mm-hmm. waaw. dafa mel ni dañu ñëw fii tey gis ngay def ay miracle di gis ngay faj mën nga ñu ñëwal tuuti ci li nga xamante ne moom ngay def. waaw mbir mi du man waaw ngàll la mm-hmm. dama ko dee wax toujours ne du man maa dee faj. yàlla suñu boroom moo dee faj man mun maa faj doomi aadama yàlla suñu borom moo dee faj wante yàlla suñu boroom sax du wàcc si suuf ñëw laal la daf ko am fu mooy gaalale mbir mi si man la ko gaalale man nag duma ma dee wax rek toujours de mooy xam-xam bi nekkul ne dama si gudduwaale waaw gudd naa suma maam musut a faj suma baay musut a faj suma yaay musut a faj waaw ah lii moom duur bi rek no moo ko xam gàlla rek moo xam waaw ñu ngi ñëwee ci man waaw mën nga ñu li nga xamante ne moom ngay faj waaw gàlla ah, ma because ah, xam-xam bi nekkul ne suma am xam la gàlla moom ma ko dénkaane su ko neexee tey tey tey mu jël ko suma loxo jox ko keneen yàlla si suñu borom moo ma dénkaane yàlla dimbal na ma ne suma loxo yi fu am ñettit si say ngaram bi su ma yàlla dimbalee su ma la laalee méttit bi daf dee dem boobu benn la ñaareel yi ku nga xam ne dafa am tension soo ñëwee am na lu ma la lay jox soo demee lu ma la ko waxee nga defee ko noonu su fa yàlla ay àndee dang dee ñëwaat nga melaat ni nga meloon su kàttani suñu boroom ak tamit gebet dimba dimba am na benn paax sax ku fi na woon fii waa hôpital bi ñu ne gebetam bi dafa éeg ma dog ko garab dimb mu delluwaat si hôpital bi mu ñëwaat ba fii mu ne ma alhamdulilah ma ne ko ah lan moo xew mu ne ma ne hôpital laa jógee nii ñu ne suma gebet bi wàcc na à zéro ah yaa ko seede waaw soo ma ne ko ne alhamdulilah du man santal suñu borom su suñu borom moo ko tegoon sa kaw moo ko génnee sa kaw waaw. ñoñu rap la xam nga rap dafa bari ay façon façon rap am na yi nga xamne mom dañ bax am na gis ma laal ko mu daanu rek rap bu bon la amé waaw dama koy dindi waxtaan ak mom, duma def forcer rap, rap ken mënu ko forcer doko ko dama koy neexal jaral na ma sax ma teddal ko si suuf pour mu bàyyi ko dama koy neexal pour mu bàyyi la waaw. à part rab yi. tamit am na ñu xam ne dañuy ñëw fii ñu am problème mu këy soo ñëwee tamit si kattan suñu borom problème boobu tamit daf di génn. daf siy génn da faj hémorroïde waaw. hémorroïde hémorroïde tamit dama ko dee faj. Mhm. an <laughs> ñu bari dang dee gaaxle nag laa ko dee faje mhm. hémorroïde bi ñu ma ko dee faje ñaa mhm. ko wax. ñetti banaana. ñetti banaana banaana rek laa ko dee faje am na lu ma dee def foofu. wante bob mom, duma la ko wax moy suma secret mm-hmm. suma fa defé mm. ma dox la nga dem nga lek ko mm-hmm. su katan suñu borom bare mm-hmm. nga ci mom inshallah allah su yalla new katan ni am nañu ne tamit dañ am new katan, ñoo tamit suñ fi ñowé su katan suñu borom mm. dafa ko dee personal problème nga ñëw nga ne ma ne dama bëgg nga dimbal ma si lii su fekkee ne mun naa ko dinañ ci waxtaan boobu tamit jot nañ waxtaan rek bañ d'accord wante dama bëgg a wax ci àdduna bi yëpp ñu dégg ko man bëgguma nit ñëw si man pour ma ngàkkal ko nit nit liggéeyaate mm. du ma ko dee defal nit yàlla suñu borom dénkaani ma xam-xam bi pour ma toroxal doomi jàmbur def ma ko dénkaane pour ma dimbale doomi jàmbur yi waaw mm-hmm. waaw am na ñoo xam ne nag mm-hmm. ñooñu moom yàlla noonu lañ leen nattee mm-hmm. ñoom toroxal doomi jàmbur rek dañ dee ñëw fii waaw suñu ñëwee ñu ne ma dama bugga nga defal ma diiw ni diiw bi def ma sonal def ma defal ni dama ko dem wax ne demal sa kër so agé julil ñaari rak nga ñaan suñu borom dina la dimbal man lolu duma ko def ma ngi fi ba fin du mois inshallah fa fin du mois après dama wat gambi insa bi gambi ñuma fay har mo opp fi suma kër daf te fees teb teb ak nit dama wax waa na ndur ne mooy mhm. ah seen doom mu ngi nii soo gisee ma bàyyi Gàmbi ñëw ba Mbuur dama bëgg a fegal feebar bu nekk seen kaw su ma yàlla dimbalee boobu laa bëgg a teggi seen kaw incha allah su soobee yàlla loolu moo ma fi indi mhm. loolu moo nekk suma tànk tamit fii rab nag nu moo coroxee nit mooy soo jëlee biir mu dàq sa biir di nga toog ñaari weer ñetti weer doo gis mbaax sa xol bi day naqar rek yow kenn deful la dara sax yow nga tongoo kër gi yëpp rab moo ko dee def ngeen bàyyi si loolu Rap nak dab de duga si digeen si ñetti place ñetti place su rap disi, si jigéen daf koy top ben bopi ne ñaarel sa digi wen bi fi rap su ko daf la top ñetteel bi sa gumba jigéen ni legi mom bañ ne ko léegi ba ñoo génne ay ay ay scoline yu bees ñu ngi wax ne Gumba out hmm. waaw soo leen defee Gumba out Gine bi ñëw na mën a Gine in